mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM daal leen jàmm ci seen émission démb ak tay ni ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag euh, ni ngeen ko déggee euh, mooy 4 avril dañuy waxtaanee indépendance bu Sénégal naka la ñu xeexee ba jot ci ana itam ñan ñoo euh, xeex ba ñu moom tey sunu bopp mën a feete suñu indépendance dañuy dalal nag koo xam ni macha allah fekkee na démb ni ma ko baaxoo wax bokk ci mag ñi nga xam ne yàlla bàyyil nañu ko fi ñuy ñaan mu gën fee yàgg te yàlla may ko wér maam Ousmane seen bale euh, àndandoo ak Senghor àndandoo ak Mamadou Dia ku wax indépendance sa xel ci ñaar ñooñee lay dem seen ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci waxtaan wi auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa salim ba mu tuddee yàlla si turu mag woowu laaw julli sëlmal si seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di la ñaan rabbi sama danga yokkal leeram di ñaan sama ñaari waajur alaaji sant sa ajaar ma am tabara jàll yu xippee sa bal sàq Seydi As Malick Sy yeesal sama taalibe si borom barakaale wa sa Tiwaawan ji ko sëñ Babacar Sy soxna Ngom Ngom Fatou Ngom Thiam Fatou Thiam Ngom maa ngi lay ziar di wax bisimilah di la wax la daan wax yow ñi muy dundal si nga bokk ay mag lan fekke ñu fàtte laaj yu ñu waxuñu ak ñun wante yow nag de temps en temps ñëw yëngal yëngatu wax li xalaat am péex nga dem ba beneen yoon yàlla mu yem tey yàlla na bala may affaire indépendance nag da bëgg ñu waxtaan tuuti maa ngi yow en tant que journaliste histoire du Sénégal 1951 la 1900 2000 ëpp ko weesu ko dama am sama doom bu nekk France démb mu téléphone mu suba teel daaw ko faral def parce que man suma jullee damay tëddaat mu ne moom papa lu xew ma ne ko si lan dañuy éliminer si coupe d'Afrique ma ne ko déedéet wala ma ankay ma ne ko déet on avait on avait six matchs ñu gagné quatre ñaari ñu match nul on nous avait demandé d'avoir dix-huit points on a quatorze points ba déedéet coow lu bëri ma ne ko bëgg yàq réew mi rek Sénégal mu def match nul luy problème football moo mel noonu ma ne ko dafa am dëkk gi bu ñuy wax El Biar El Biar c'est un village perdu dans le fin fond de l'Algérie kenn kenn xamu ko kenn dégg ko kenn mësu koo Coupe de France ñu def tirage bu dajee colon dëkk bu équipe bu la rees rees woon équipe bu mag am ku la wax Raymond Kopa am ku la wax Léon Goulowacki am ku la wax Juste Fontaine am ku la wax Roger Piantoudi am ku la Jean Vincent si ginnaaw nag mu am ku la wax Robert ak ku la Roger March le sanglier de Ardennes moo doon gauche équipe de France ñu dem suy ji Algérie ñu door leen 1 indépendance Algérie si li koy yokk defeti El Biar boobu euh, Reims El Biar si la bokk barke de ba yàggul rek la Allemagne door huit de l'argent de de Messi ak yeneen ak yeneen ak yeneen wante réew mi daal toll na foo xam ne daal y a plus rajo Sénégal laa gis rajo bi xëy di wax de huit heures suba ba ëllëg huit heures suba ñëpp ngay wax bu guddee dana wax ba bërse ba ci géej ba ci géej wax ba mi nag buñ ko yàq te nag euh, Fatou Thiam Ngom dina yàqu ji de hmm. lii bu bàyyiwulee coow lu bari le coow lu bari bàyyiwule dina juri musiba bu jëkk lan moo xewoon en 1951 bi Senghor di woote wooteeg dafa am lu doy waar Fatou Ngom dafa am ko noonu Serigne Babacar Sy sëriñ Alaaji Malick jur ko mu ànd ak Senghor Serigne Fallou Mbacké Xaadimu Rasuul jur ko mu ànd ak Senghor mun tëgg a taal Omar Foutiyou Tall ak Senghor Ibrahima Diop grand chef de Dakar chef de la culture ànd ak Lamine Gueye Alaaji Aziz Dabakh ak magam Serigne Mansour ànd ak Lamine Gueye Ibrahima Ibrahima Niass ànd ak Lamine Gueye Alaaji ànd ak Senghor Alaaji Ëmbarësu Ndoy ànd ak ak ak Lamine Gueye Alaaji Mboor Jaañ grand sëñ ànd ak Dakar ànd ak Lamine Gueye Alaaji Ëmbarësu Alaaji Alassane Ndiir ànd ak Lamine Gueye lépp guy xar doon ñaar réew mi xar doon ñaar waat kenn musul dégg lii kenn musul gis lii wante réew moo xam lu xew danoo woote rek sa tous les quatre ans tous les cinq ñu woote ñi ne Macky wàkk Macky Sall la ñi ne Macky di waa ànd loolu rek ñu ko taal réew mi si li si ay wax rek nag bu football ba jotee ñëpp entraîneur lañ Alioune Cissé mii moo nu jox ndam toog nañ fukki at dégg ju wiiw deux mille deux nga ji dégg wiiw ba nu woo indi ko mu yóbbu ñu coupe du monde yóbbu ñu final coupe d'Afrique lu amul woon ñu ngi koy pexeel nag parce que dafa saay saay yoo xam ne si réew yi pexe la fi nekk pour jëlee ko fi bu ko fi jëlee it xam naa ki mu fay indi foog naa ko su ko defee dina lépp dina yàqu la ñu delluwaat à zéro. kan la kooku. du ma wax du bëgg hmm. parce que da tuuma gune laa te réew mi neexul euh, ko jaam réew mi ñëw fi mag bareetunu li ma fekk jëkk a fekk bareetunu te xale yi yéemu ñu toroxal mag te man duma toll fu ma toll sama at ak sama sutura ma ma occasion ñu yooyu ñi ma ko ñooyu deel ma ko ma ko def sama docteur dana waxtaan bëkk de maak moom fekk ma feebar lool mu di ma dalal mu ne ko docteur dafa am lu ma xam mun a mu ne ko ñu dund quatre-vingt-dix ans bariwunu ma xam leen mhm. sur mille yu ma xam cent dund si quatre-vingt-dix ans tam wees naa quatre-vingt-sept ans mhm. te sama baay sama yaay sama maam samay mag samay rakk samay sama samay xarit kenn amul si quatre vingt mhm. nag xaw ma sax ndax moom mooy yóbbu feebar bi wala daal maa ngay waaj bàyyi ba it ma waaj. yàlla na fi yàlla bàyyi seen ba ca kanam ak seen am na leen lu ñuy dégg ci réew mi it di ko gis mu xaw a ñu bari mooy coowal euh, xëy na kii naan xeet bii laa bokk kii naan fii laa dëkk fee laa faree kon kii laay jàppale loola mag mu mel ni yow bu koy dégg euh, lu mu yëg. xam nga lii kañ la xew. Hmm. Macky Sall rek FMDC FMDC bi ngay dégg moo xewoon ñëpp xam ne diggante Assane Seck ak Senghor neexul woon dara wax dëgg ba ba demee en mille neuf cent cinquante deux ba nekk en jeu dañu jël position ànd ak Senghor Assane Seck Émile bu Ibou Diallo Demba Koli Balla Moussa Daffé Yoro Kandé Demba Koyta xanaa ko loo xamul doom dégg nga lépp dina mos a si réew mi waaye nag dafa am xale bu bees bu doon Sonko tudd tudd Ousmane man la jotewuma moom daara dafa yaakaar ne war naa falu et tous les moyens sont bons te loolu baaxul te réew mi bëggatuñu dëgg ma dëmbal ma ma dëmbal tuuti ma jëmbal na ko. ma jëmbal jaañ. ma jëmbal jaañ li ma wax dafa neex a dégg xaw ma ko nag musuma ko gis wante bëgg a falu arul jarul àgg fenn fi te ñëpp dégg nañ li Sonko wax. soo léegi taal réew yi taal réew mi rey nit tëju bitik ñu ne bu kenn jàpp kenn ñu taal jëree yi ñi taal bitik yi ñëpp seen léegi bu la kenn jàpp Karim Wade xaw ma ko contre wu ma ko it mu nga bu mu nekk ban dëkk. Qatar waaw moom français la lu ko teree dem Qatar lu ko dem teree France ñu ne kenn du ko wax ku ko jël si procureur de la République. mais doom procureur bi lu mu si état procureur bi moo ko jël si moo ko yóbbu du wax loolu ba xam lan la ba leeral ko Khalifa Sall si jamono bu ko ci woon ak Ablaye bu ko ci woon ak Macky Sall ba Khalifa Sall laa àndal moom laa miin moom laa xam maa ko yar si parti bi waxuñu na deful da li li gars yi daan def mm-hmm. loolu la def mm-hmm. ñoo nga ko bàyyi lépp nag mun na am ci jàmm ak salaam waaye doon par force nag réew ñu ko bëgg yàq koo wax mu ngi wax lu bon koo wax mu ngi yàq su guddee bu ubbee rajo bi déglu déglu ay rajo foog ne Macky Sall chiffon la ku lu force mbedd mi la du président République loolu neex waaye wax ko ba bërset wax ku wax lu ñaaw jox sama wax lu ñaaw te nag te kenn te ko lu journaliste yi dama wax sama jabar te su ma woon soxla boo mënul faj damay seeti kii ay dara da ko ay dara Ahmed wala mba mbaa ndóoyu baan xaw ma hmm. su ma woon soxla bu bu yàlla bu ma faj damay seeti ndóoyu baan ndóoyu baan wala Ahmed ay su ma leen ko waxee bu ñu waxee mu faju yàq réew mi fat cam cam gom te bu si yi ñu xam na ñu doon mag lan man li ma la wax rek dootuma gune xëy na pari mag sax du ma ko fekkati yàllaa ko fekk wante gëwuma ko li tax a tax a jóg nag mooy indépendance Sénégal fekk naa ko li fi xew mille neuf cent cinquante yow je suis acteur ou témoin parti bii ñoo wax ginnaaw ku ne wax ma sàmm ñang dëkk ndar feebar tëdd mënatul boppam dara maa la mag moom rek moo si mag waaye ku si des rek maa mag tey may ñaan amita mbéy nga njaay bi xam ne tey moo doon Senghor mu fàttaliku ñu mel na Massamba Niang am na ku ne wax Moussa Ousmane Niang galan mu nga sa Kaolack am na ku ne wax Dior c'est un ancien de la région de Saint-Louis ku ne wax El Hadj Adja Rose Ndiaye maanaam c'est Birame Ndiaye adjoint au maire monsieur Tamsir Sakho am na ku ne wax am na ku ne wax euh, Ndeye Sylla soo xam ne ñaari bant Ramatoulaye Seck Sowakaan. waaye ñu lan antan dagg njaay woo ñoom ne leen la joxe ginnaaw yàlla ak yonentam nag ñoo ñoom la bu ñu ñun ñii lii te tey lu am hmm. man al man gis nga homme politique yi yi Fat Thiam Ngom. Papa xam nga ku ma si gënal. Papa Diop. kenn du moom. xaw ma ko. musuma dem këram. musul ñëw sama kër. te day këram ak Khalifa Niass rek. sama xarit. amal Khalifa Niass yàlla yàlla yokk mënam. yokk taxawaayam. sama xarit la. te li xarit di jëriñ. bu jamono xewee. bàyyiwu ma seetaanu ma. yàlla bu ko yàlla bu ko yàlla bu ko yàlla seetaan. moom daal xalifa ñes moom pap yorit boo ma rek ñu mu ñëw toog sama ne ma grand yow de miinoo ma ne ko déet ma ne bu ëllëgee am na ko nu wax jaw ma ne ko fu mu nekk mun a assemblée ma wax lu mu fay doon mu ne moo yore soldat yi bu ëllëgee boo xëyee mu fay la def na ko juróom benn at moom pap Diop gisuma ko dégguma ko bi mu daanoo dama màkk fay ñaari weer ñu daanal ko fa la te Moustapha Niass nag mii nekk sa place xam naa yaayam xam naa nijaayam xam naa rakkam xam naa yi mbokkam këram ak ñaa ba tey xam naa doom xam naa yi jabaram xam naa léppam te te ñoo ñi ko dimbali am monté sur le podium it rajo laay laa bokk defu ko laaju ma ko it malgré fàttali naa ko ndax baax la naka la def ba am indépendance doon fii rek assemblée fédérale du Mali de Gaulle waxtaan ak Senghor xam nga général de Gaulle Fatou Thiam ñi gën dégg français si la bokk di yore nekk nit yi événement bu France yëngatoo général la en retraite waaye bu dem devant la télévision te du général lay sol nag te nga militaire magistrat avocat professeur seen dina yooyu ñoo sol dafa am jëmm mhm. dafa am daraja mhm. dafa barke dogal na ko sangar na ko mon monsieur le président il se fait tard restez avec nous français am sens profondeur foo ko dogal na ko jox naa indépendance Mali ak Sénégal réunis waxul Côte d'Ivoire waxul waxul waxul Togo waxul fenn ñoom ñaar rek wax. wax ji. wax ju rëy wax ju wax hmm. doomu aadama rek lañ hmm. ju rëy. Hmm. jëf ju rëy faj. ñu commencé négociation yi nag yebale délégation du Mali. ñuy daje à la recherche midi ñi xam France xam ne fu recherche midi nekk ambassade du Mali. ba tey fa la nekk keroog bi Abdou Diouf ànd ak se ànd ak Habib Thiam di seet si Mamadou Dia pour ñibbi si Sénégal liggéey si keroog la ma fekk ñoom ñaar ñu ànd ñu négocier ba le 4 avril 1960 ñu ñu yox Sénégal indépendance am xam nga kenn mu ko mu ko fay fay aada bu jeex nag mm-hmm. ñu war a préparer ak armée bi yi gendarmerie police administration yëpp jaajëf discours à l'Assemblée nationale pour représenter pour présenter son son son discours euh, à la nation Senghor fekk toog ku ñu Jacques Fossé gi toog Bakar Wali borom ñeenti angal yi toog dans son élégance coutumière di wax le Sénégal mon peuple est un peuple ancien ouvert sur le grand large sur l'Harmattan comme sur l'Alizé sur le vent d'Est comme sur le vent d'Est un pays dont la vocation naturelle est le dialogue et la communication. kon dialogue yàgg na ak ñun. mais Ousmane Sénégal est un peuple ancien. Mm-hmm. dégg lu mu ouvert sur le grand large, sur l'Armatan comme sur le, vent d'Est comme sur le vent d'Ouest, un pays dont la vocation naturelle est le dialogue et la communication. muy dëkk bu yàgg l'arbre à l'arbre di ay dikku bés bu su boobu ñëpp jóg fóorante ñëpp joxante jàmm Lamine Gueye fóon Senghor Senghor fóon Lamine ja fóot Senghor fóor Lamine Guèye Guèye fóot ko Ndiogou Wag Ba eh bien Alioune Badara Mbengue ñoom Ousmane Ngom ñoom ñoom ñoom eh, Edouard Diatta eh, ñoom Émile Badiane ñoom Ablaye Ba sa Bakel ñoom Madi Sissoko sa Kédougou ah ñëpp Ngom Maître Diaw demb Diop ñëpp euh, Ibou Kébé euh, docteur Samb ñëpp ñëpp jóg taxaw Saint-Louis Babacar Sèye Ablaye Sèye ñëpp jóg muy jàmm ak salaam muy te muy soixante et un ren nag Senghor def vingt ans Abdou Diouf def vingt ans Abdoulaye def douze ans Macky Sall def huit ans rek jëm neuf ans muy soixante et un daal li ma gëm man li ma gëm te yàlla tax may wax boo boolee vingt ans Abdou Diouf vingt ans ak douze ans lay Wade li fi Macky Sall def def defuñu ko loolu laa gëm nag te yàlla tax may wax mm-hmm. wan nag Abdoulaye Macky Macky nag dafa ànd ñu bari ñu mu ànd ay saay-saay ay yàqkat bu nu capable ay ragal lan bu nu ragal lay bu bu nu ñemee ay incapable lan wante défendre Macky défendre ko yomb na lool xam nga yëg responsable politique boo ñëwoon Ndakaaru gii mun nga juma kër Samba Gueye soo ñëwee da yéeg sa gi teg ndékki la ngeen ndékki bu la xamee rek bu la xamul nga jubal kër amul asan ndóoy fekk mu toog si saal bi bu la xamee bu la xamul di nga reer kër alaaji Ibrahima Diop alaaji Mbaye Daay Gaay alaaji alaaji Aliya Koddu Jéen alaaji Aliya Koddu Ndóoy kër Ismaïla Guèye kër Mbaye Guèye kër alaaji Njóogu Guèye kër Alaya Jaañ kër Cerno Amaat Mbeng kër Moussa Diouf Diagne kër Mboor jaañ kër goo dem si biir kër gi leen ngeen toog ngeen waxtaan lu fa am ngeen séddoo ko tey si tey nag ñoom ñëpp ñu ngi dëkk huitième étage pour gis leen si la croix et la bannière xam nga xam nga maa mag si parti bi xam nga Ndakaaru ba dix-neuf maire ñaar laa si xam man te gisuma leen nag Papa Seck daal muy HLM moom léegi-léegi mu woo ma sant añ sama mbay la kutee léegi-léegi moom ma jeex Pikine am na dix maire xaw fa kenn géejawaay kat xawoo fa kenn te ngay jéem a dëkk nag am na ñeenti maire kenn laa sax muy Alaaji Daawda Jaan jeex na xamuñu sama kër xaw ma seen kër woowuñu ma woowuma leen. tëngéej gi nga dëkk it Mbaye Jacques Diop fi la dëkkoon. Ah? ku wax man ni tëngéej gi nga dëkk it Mbaye Jacques Diop fi la dëkkoon. ba mu dee la yóbbaale yëpp. ku wax mbay Jacques Diop sa dem ci porteur de pancarte yi ñooña lu doon seen taxawaay ci xeexum indépendance bi. xam nga porteur de pancarte. bugguma di si wax. parce que nin koy waxee ñaari. ak ni mu amee bokkul. tóortóor parce que yàllaay wane boppam. pour la première fois au Sénégal place forte mooy place indépendance bii ngay dégg la doole BNDES xam nga BNDES. waaw suisse franc suisse moo sës si ale kadaar lépp fees ak ay nit góor ak jigéen mag ak ndaw ñu xonq ak ñu ñuul ñëpp wax benn wax benn woy rek woy wi lan la indépendance Sénégal rek kenn xàmmeewul kenn étudiants yi jóge France ñu jóge université Dakar syndicat yi jóg élèves yu jóg citoyens yu jóg ñëpp a jóg ànd bi de dënk ne indépendance. boobu nga De Gaulle ko bett te li ma wax léegi mooy yal na yàlla may collaborateur yu wóor xam nga man dama mer historien sénégalais yi lool hmm. du du wax li ñu wax wax. ñi nekk université. Hmm. xuloo xaste rek ñiy xas régime bi ñuy ànd ak régime bi. France dafa def ñaari weer yu nekk euh, Fat Thiam moom coup d'état am remaniement ministériel am ñetti généraux ñeenti généraux kii ñu ngi ko wax Charles kii ñu ngi ko wax Zeller kii ñu ngi ko wax Bizarre kii ñu koy wax Zeller Charles Pijard Zeller Charles Pijard euh, le viendra mhm. ñoo daje ne seen pas continuer il faut ñu trouver solution ñu ne luy solution bi ñu def leen dugul Voilà comment De Gaulle a le pouvoir. Ça a été un coup d'État. ñu fal De Gaulle boobu France tiit na la France s'est battue à Indochine yaa ngi may dégg. Mhm. kan moo leen battre un professeur un professeur d'histoire géo université yi da noppi général Giap moo ne moo ne yi les officiers supérieurs nos vélos nos taxis nos vélos seront vos taxis de la Marne xam nga la Marne mm. département la si Paris mm-hmm. taxi fa la ñoo garé mu ne les taxis les taxis les montagnes les bon les grandes montagnes de de de de de Chine nee taxi yooyu fa la gars yi jaar pour dara France les maréchals de Tassigny, tous les officiers supérieurs français sortis plus grandes écoles de France ont rayé ak xataay gëmu ci dara kooku ma battre France ku noo ku noo wax Gamal Abdel Nasser nationalité le canal de Suez xaa dégg ko mhm. France ne du fi am Angleterre du fi am mu tax ne si Bourguiba jël indépendance Tunisie Mohamed V jël indépendance yi Maroc gama ku loo wax euh, Kourou Kourouma jël indépendance yi Ghana Mbadou venait de se passer yëpp di defar pour le colonialisme De amul pexe fekk nag. le gouvernement seul préparé na la loi cadre bi dëggal ñëwee nag ñu dégg ku la wax Gaston Defferre c'était maire de Marseille xariti Alaaji du jàll la woon dëggal yaakaar na ne dafa am ku la wax Bernard Cornut-Gentille xamuloo ko de. Mm-hmm. waaye dégg nañ pendant dix ans. def ko la France outre-mer le maire de Nice mu yaakaar ne celui qui a été pendant près de dix ans gouverneur de la région war na mun liggéey pour pour ñëpp woote wuy te Bernard Cordier di aussi xariti Sékou Touré la woon ñu doxal doxal ko ne jógul day dem jóge Brazza ñëw Côte d'Ivoire ñu chauffeur bi Côte d'Ivoire daf ko Guinée parce que le ministre la France sunu est l'ami de Sékou Touré ak Ndakaaru dogal dem Brazza ça mu ñëw Sékou Touré tas tas réew ma mais indépendance rek lay am Djibo Bakary c'est Niger ni moo dee woote donc sénégalais day woote non kon dugal ay choses se sont plein kon ak Guinée nag xam nga dëkk bu doy waar bu organisé RDA la woon waaw wala wa dee wala dee rek les tous les Guinéens ont été d'accord avec Soussou les Soussou mu des mu des les les les les les Foutanké pël Fouta te boo temps ku lox safi lay jàllo ak bari trois jiba lëg Sékou Touré ñoo am unanimité woote non jiba Bakary yaay te bati lébu yi nag Dakaaru yii donc Alaaji Ibrahima Diop grand chef de ne bu Sénégal wootee oui non ñoom il demande la la la l'indépendance de la de la région de Cap-Vert. Codé Charte bi jógal jibbee te fi toog ñetti fan gisee ak giseeg lëbu yi giseeg tubaab yi Cheikh Tidiane si formé parti moom ak ko lox Graziani ak ko lox Ibrahima Niass bu Kaolack lëbu yi ne il wot no il il woy loolu moo tax jànneeku fi wal joojo wax nu rekkala ma ne panes parti bee ko wax de hmm. du wal joojo de damaa la peur nag bal li dal ji bakk euh, dal Niger euh, dal ñu nous avons le 28 septembre 1959 ba demee Mamadou Dia di ko di ko ndokkee li ñu ne je dama Roland Collin ak Jean Collin Jean Collin yéen moom ngeen xam mm-hmm. Roland Collin nag moo directeur de cabinet Mamadou Dia en cinquante huit cinquante neuf Collin moom benn ëllëg koy bindee mm-hmm. ba ñëwee fekku mel benn ñebbe si cin mm-hmm. parce que communiste la woon il a woote non ko Roland si tu penses aimer Sénégal mieux que moi tu te trompes yow mi xam ne sa bàyyi dëkku fi sa maam dëkku fi sa maamaat dëkku fi kër yow dëkkoo fi man ma juddoo fi sa maam juddoo fi ñëpp juddoo fi ma ma ma maay sara ak man maay sara mu xonq jur su la gëj a indépendance googu nag. leen fêté pour la première fois en soixante xamu soixante deux si boulevard de la Marine. naka la xew ba demee woon. xam nga boulevard de la Marine. puis port Dakar ne xam nga. waaw tali boobu. waaw foo commencé sa mool mool mool kat. Mm. ba si mairie Tëngéej mairie Dakar. Mm-hmm. si si premier lancé au pigeon. si li njëkk musique. yëg dëgg dëgg hymne bi Senghor taxaw jot taxaw Sénégal taxaw ñun ñii ñun bii ñëw défilé au dos du MCPS c'est la première ñu am armée parce que ñii coow euh, Fatou Fatou Thiam Ngom dañ coow li bu njëkk ku fa amoon ku fa ñetti néeg ku fa amoon étage ndakaaru midi ma ndakaaru nga ma kër Sëriñ Abdou boo amee frigidaire sa biir néeg ngay def pour tiitaru kenn du ko fi tax ko kenn amul courant baraag la ñanga ñangaaral Senghor malgré je suis contre lui a fait une armée une police une yu nekkoon yooyu amu fi woon tëggee gii ma dëkk ñetti école yi fa benn école école ma taar boo dëkkee yéen fi ngay jàng yéen laa wax de xam nga fu yéen nekk bu dëkk sàngal kam fi ngay jàngee boo dëkkee guy guy jinne fi ngay jàngee xam nga naka ñaata ñaata école fa amoon hmm. ñeent école Medina école Malick si école Faidherbe école de yi Rue de Thiock jeex na tali amul Sicap amul Liberté amul kër gi kër góor gi amul daara amul tali yëpp suuf la loolu fi Senghor fekk te euh, dafa am lu historien du lox te Fatou nga bëgg naa bëgg naa ci am nga nga dugg na si lool xam nga France bi dafa jël xaalis bi yooyu yóbbu ko France it faatu dégg dama la si kanam ne la Mali la Mali la jox indépendance ak Sénégal ak ñi si xaalis boobu la France boole ak France Sénégal ak Mali yóbbu yóbbu France les Légions d'or Fatiam Ngom mhm. yi gars yi yaramoon en 1940 yóbbu dañu ko yóbbu bal Sénégal ñu ne Mali mhm. mos nga dégg ñu wax si mos nga dégg si su wax mos nga dégg rajo bi su wax yooyu ñoo jër a wax xaalis boobu France daan France vingt millions wa dana si fii si autoroute hmm. waaw góor gu noo wax artiste Seck moo ko far artiste Seck ni jaay li si tamit géej si ba xam ne mu risque ko jur boobu vingt millions xaalis la de neuf xam nit ñu la ko bàyyi hmm. ne ko sa yaram bés wala xulóog bés wala nangam nangam ba mu delloo xaalis mais l'argent du trésor du Sénégal faatu hmm. France dañ ko yëpp yóbbu ko France lépp luy wurus ak luy xaalis pièce billet yóbbu nañ ko France la condition dans laquelle Senghor a pris l'indépendance du Sénégal comme quand mooy sora wutaloog ñoom hmm. yu bëri ñu def sur la base d'une négociation secrète Senghor nag pour ñu may indépendance Mali Malien yi bugg ñëwoon Castro jiite leen dañu bëggoon Lamine Guèye nekk président de la République à ah, bañ ne moom Senghor il est loyal ak Senghor ba tax Senghor toog ne Mamadou Dia lool loolu nag moom topp ba tey Fatou xool léegi nit di maye milliard Fatou bu njëkk ku maye cent mille na boo dee ñu ngi ñu ngi ñu ngi loolu ñëw tur loolu ñu wax ci rajo yi di ñaan di ñaan di yelwaan yooyu ñoo yelwaan yooyu xew yooyu gaa joxe ay xaalis pour le cœurs ak pour les nangam les mosquées ak yooyu Mhm. téeméer bi xam nga nu mu tudd si rajo bi téeméer bi da ngay xewloo ko. téléthon. télé ah téléthon nga. waaw téléthon ni di may cent millions cinquante millions trente millions vingt millions dix millions boo compté muy huit milliards bu njëkk amoon na bu njëkk fii xam ku noo wax nga am na xaalis mm. Amadou Assane Ndoye te ñooñu ko door la jóge mm. après ku wax Ndiouga Kébé ak Jili Mbay mm-hmm. ñu xam ne seen xaalis jëlewul ko fii mm-hmm. te kenn mësu si mayee milliard kenn mësu si dégg na mayee na cinq cent millions te mm-hmm. nañ ñaa koy maye di di romb di dem kon réew mi dox na kon réew mi dox na waaw waaw mais du euh, Fatou boo boo demee kër góor gi ki Almadi da ko tax trois étages dëkk ko kenn lu moom ak jabaram te Abou Sakho day homme politique nag kon nañ bàyyi homme politique yi Fatou moi je fais partie des gens qui ont donné l'indépendance au Sénégal j'ai le tour du monde ak suñu mel ni man nag wante yàlla def na ñu ñëpp dem nañ tey dem l'Europe def l'Afrique def l'Asie partout nous avons suivi le pays pour l'élevage du Sénégal ensuite pour sa consommation parti bi ñu jiite muy PS ànd ak Macky Sall kenn xaw ma si kenn xaw ma sax la xaw ma te am na union soviétique boo amee feet feet ba tey nii les combattants premier combattant premier na noo toog léegi ñu bari dem na kon daal indépendance ñëwaat na bii mooy suñu soixantième an juróom benn fukki ak benn ñuy fête indépendance yàlla na fi yàgg te it réew bi xamuñu ko mun defar suñ toll nii mooy sëriñ si sëñ Mountakha de gis nañ taxawaayam bi macha allah. wala bu ñu sàggalee nag hmm. dañuy la rax yàq ko wàllu yu sëriñ Tuubaa kenn wetanteetu ko kenn rek rek si réew bi fi mu toll moo moo mun wax rek ñëpp ne yow ku contre doo wax ku ku ku ku ku contre doo mooy së sëñ Muntaga rek moom la ñëpp nangu baatam boo kon boo boo boo doxalee doo wax te mu di organisé organisation boo xam ne euh, Fatou Thiam Ngom ëllëg si biir kenn du dem ñu des koo xam nag looloo am koo xamul looloo am. man mi man mii wax yow te taalibe Tijaan laa bu amul benn benn benn caaxaan bëgg dem ba ma jaaxee feebar dama taal sama oto dem seeti Moustapha Sy mu sëy Amin fa laa yenu fa laa tëdd mu ne mu loxo mu loxo dama feebar faj ma fii laa ko yaakaare sa bàyyi dafa ba du bañee naar ba dafa Tuubaa dafa daa wut si gànnaay yóbbu ñu ne ko lu tax mu ne fi laa ko yaakaare may may gën a feebar te tiit naa faj ma fa laa yëndoog moom macha allah tubaarakallah kon nan dox nan jóg fàccaan wax leen yaa ngi di yàq réew mi yéen journaliste yi te su suma yóbbante yóbbante la yóbbante la si sa patron amaguma réponse nag xaw ma ko beneen laa ko mos a wutuma audience man man tubaab macha allah maa ngi bëgg am quatre-vingt-dix ans su ma dee woon tey macha maari taal kenn ma fayee ko bor kenn musul dem police tinuma kenn musul dem gendarmerie tinuma kenn musul ñëw ne Ousmane Sène ñëw leb ba wala moo ñëw ñaan maa ngi sama kër toog man dama xool liggéeyam am na télévision am na rajo am na journal. te yëg fa am ñëpp comme moom ñu ngi xëba-xëb di yàq réew mi ma bokk si loolu rek laay chaque mooy fa émission parce que man man li ma des si àddina su ma xamul ma njëg ma njëg jóob may wàññi man daara la ma dul wàññi ku ma xamul keneen xulul ma njëg jóob bi daara la ma dul mu nekk bu mu si jóg want wéet na la hmm. na jóg na jóg wut yu mel ni ñoom parce que réew mi ñu de te ma jëmbal jaañ mii li mu wax neex naa dégg de te jar na topp de buñ ko toppalee réew mi la xëy te it xool rek euh, li xew ko Sonko amul kenn ku si doomam gaañu wala ku si jabaram gaañu wala ku si mbokkam gaañu et douze morts xale yi xëy dem di dajji ji ay Auchan yi Auchan sur tout le monde Carrefour di ko daj ñëpp jëloon ñoom di lakk sa oto di taal sa kër. ñëpp xàmmee leen kenn ñemeñu leen jàpp. kon daal boo xoolee démb ak tey euh, li fi yàqu bari na lool. nit ñi nuroowul bu kaay yi nax seen bopp ñoo yarul suñu njaboot man tous mes enfants sont universitaires kenn mu see gërëm mhm. nanguwuma ko damaa tiit nag. xam xam naa bu yàqu it du fekk parce que dundoo bari de ce jour wante Macky Sall miin na jóg. wax réew mi hmm. te waxumaa du bukki hmm. bu jëmeñee faneen àll bu ragalee faneen àll hmm. boo amee seetlu bu baax moom Macky Sall wala ñu mu ànd am seetlu bu baax Macky Sall di wax na ko nag moom si gémmiñam du politique politique du politique rek de wees na politique keroog bu ma ànd ak Abdou Diouf dem assemblée nationale française opposition PDS jur ko di ko yuuxoo dafa mu ma Ousmane Abdou Diouf ngeen dee nag dund mm-hmm. gisuma ko dégguma ko wante ko jàppale woon la man duma lu ma naqari ba moo dem tàgguwul kenn ba mu demee it gis kenn ku defaroo ñu ne Abdou Diouf ko defar am na ñoo xam ba nu bàyyee ba ba nu bàyyee Ablaye ba te ñu ngi tedd hmm. Macky ba su jógee ma dee doonul Abdou Diouf nag doonul Senghor dafa ne Ousmane mun naa ah, mun a ñii xaw moon nii la ñu ma bañee hmm. parce que lii nag ma def mun ah, fekk ma fekk ma France pour yuuxu ma weer ma may ma àddina du politique indi la ma ko wax nga dëgg de hmm. boo ko xamee loolu boo ko xamul loolu la looloo dal Macky nag ñi contre Macky contre ko politiquement de c'est de la haine bu ñàkkee fayda nag yàlla ma yàlla baal si wax ji duggee ma ko noonu de ba seetaan li dal Senghor Senghor dem na kenn toppul kenam Abdou Diouf kenn toppul kenam Abdoulaye Wade dem na kenn toppul kenn moom du ko dal de waa waa kër dañuy sonn de ceux qui sont partenaires à Senghor pardon ko Abdou Diouf pardon ko Abdoulaye xaaj loo xëy na fa def ñooy def ñu fi dara mbo ñu bàyyi leen ñu dem kenn ceewu leen moom nag dalu bu ko sant sàllam yàlla mi sàll waxee ñu ne tey dee bu fay fay bu waxee ñu ne tey dee waaw Abdoulaye Wade jël fa doomam fal ko Senghor jël attaché Senghor jël ay mbokkam def ko ambassadeur Abdoulaye Abdoulaye Wade def loolu ñëpp def ko Abdoulaye Wade ku mu jural doomam rakkam rek ñettee ñettee bu ma koy dàq ko te duñ ko bàyyi nag de hmm. le problème de la Casamance se soulevé il existe un problème bu mu su bu jox yox yi lu mu leen jaral na ko jaral xam naa sax sama xëy na sama at ak sama âge war war ma wax ne man dama am doom ñu mm-hmm. maase ab Macky Sall ab Ablaye parce que Macky Sall ami diplôme comme moom war a ëllëg civil joué dans ce pays là te ñun ñoo Macky Sall ànd ak ak socialiste na taxaw te remaniement na ko bàyyi ñëpp a yem amul njëriñ remaniement hmm. ah, waaw ñu organiser parti wax nañ ko ba tey moom fal ba ñu ko huit ans mu dëgër bopp te réew parti ko yore hmm. une bonne organisation de femmes une bonne organisation de jeunes une bonne organisation de jeune hommes de jeunes hommes une bonne organisation syndicale ne wut ku mu jiital ku topp si moom bu nu bu bu fu mag nekkul mu nekk na wut syndicat boo xam ne diwoo ma doy lay wax na wut jeune démocrate ma doy wax jigéen diwoo ma doy la démocratie xam loo benn professeur sama professeur wax la contenant qui n'a de valeur que parce qu'il contient mu ne ma c'est sac si de l'or c'est de l'or si de l'huile c'est de l'huile si de riz c'est du riz loolu daal fa euh, caam su ma gërëmee sant santaat la yii may wax sant ko ma ko tere wante ab réew jar na ko fekkewunu badar fekkewunu óot wante fekkat na Sénégal gi nga xam ne da ngay jël sa oto dugg si climatisé wu soo tëgg dugg si climatisé wu am jàmm ak salaam ku nekk mën nga lu sa bàyyi bunul woon ku nekk mën nga sa ndey bunul woon ku nekk am nga jàmm yu sa bàyyi amul woon ku nekk am nga jàmm yu sa ndey amul woon ñu xëy nag am ñoo xam rek pour le seul problème ñu fal leen ñu ils sont prêts à brûler le pays. terege yii nañ si jóg nañ ko tëj. bu jëkk booy lim journaliste juróom ngay lim léegi tout le monde est journaliste booy ub booy ubbi rajo da ngay waar sax y a de cinquante rajo te nag ku si nekk am nga say ama say amateur yoo xam ne bu la wax si da ngay waar maa la bugg yaa am yaa sob li ngay wax saf nañu diw ba mu jeex rek jeex soo ba ngoon jot. loolu yàq réew loolu lot moo yàq réew nan yemale lépp di wax nag na ñëw nga fi ñëwaat nga fi ñëwaat nga fi ñëwaat nga fi yàlla fi yàgg ñëw. amiin seen. dafa am ñaar ndax yu tax yow tax ne waxtu fee ñëw ma recevoir la. Mm-hmm. bu njëkkee Mansour Mbaye gi ma njëkkee indil. kii nga seeti ko mu nekkoon député nekk président du conseil régional mu Ahmed Salib Boye. Mm-hmm. mooy li may laaj de doon sama sago mm-hmm. nga dem laaj ko El Hadj Ousmane Sène Blay. teguñ si weer mu dee. yal na ko yàlla xar àjjana ñetteel bi sa jikko sa yar sa teggit sax sa téye ñeenteel bi nag sa patron bi la fay yebal mm. te xaw ma ko jikkoom daf ma doy booba taan xaw ma la yow mm-hmm. ma considère nag lii may wax sama parti sama participation la parce que réew mi la remarque mm-hmm. wax ak dégg rek ma yaakaar li ma sëñ ma mbajit Jóob mii mm-hmm. réew mi ne ko dégg te ba muy dëgg mm-hmm. dama seetu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma maa ko dox Alaaji Ousmane Diagne ak Njóogu Jóob mm-hmm. ñuy waxtaan bi ñett moom bokk si Cheikh Mbacke kenn du moom mm-hmm. waxtaan waaye nag xam naa mu nekk mu ngi tuglu mu jëkk dal gis dal Ousmane mu la ko mu ne ko gors dañ mortu wax de Ousmane ne ko lan lan ak lan wax lu dul def ak ak santal lu dul santal lu dul def ak tere lu dul bàyyi santal lu dul def hmm. bàyyi leen tux kenn tuxul hmm. bu leen génn bunt kër yi ñëpp génn ñu ne koor day moytu loolu tere lu dul bàyyi ak wax lu dul def fële fële yi ma wax ji waxatul ban def <laughs> loolu nag eh, ngoom hmm. man nag toog naag sëriñ Fallou mbakk Abdou Lahad sëriñ Abdou Khad ak sëriñ Saliou Mahfous maam Thierno Mbacké Maodo Mokhtar Mbacké mu def toog toog naag sëriñ Abdou Aziz Dabakh mm. toog naag sëriñ toog naag sëriñ mu mag mu ndaw Cheikh Tidiane Sy Abdou Aziz Al Amine sëñ Babacar Sy Mansour toog naa Ibrahima ab Ablaye Ibrahima Niass ak Ablaye Ibrahima Niass Amar Khalifa Niass Sidi Lamine Niass toog naa Baye Laye ab si si ku nekk nag toog waxtaan lu ma jëriñoo si yow ba au soir vie di ko jëriñoo nag dégg ko it ku di ku baax la si bi toog naa yow waxtaan naa yow. kon nag maa ngi lay gërëm di la sant. Mm-hmm. di wax suñu ñëw bii te yàlla bu def suñu mujjee ñëw. yal na yàlla jubal ak say waaju sa waa sa jëkkër. barkeel sa jaboot. Mm-hmm. si liggéey bii nga liggéey nga yàgg fa lool ba am fa promotion. Mm-hmm. mérité nga Ndakaar ñëw tëggee bu ko dellu liggéey monte ji demaat sa kër metti na wante au bout de l'effort se trouve la récompense jërëjëf yow itam mm-hmm. yàlla la fi yàlla bàyyi. Mm-hmm. Eh, ba nu fekkaat la fi incha allah waxtaanee waat yeneen yoo xam ne xëy na ni koy waxee ñi ko fekkee bariwut mbégte mu rey la ci ñun it saa su ne ñuy ñëw di root ci yow ndax saa yu nu ñëwee nga wax nu loo xam ne mosuñu koo dégg. Eh, lu nu xamul woon itam dañu koy xamee ci yow kon njariñ la ci ñun kese ñuy ñëw di waxtaan ak yow di la gërëm itam nag ci disponibilité bi xam naa ne wér gi mayeetu ko ak yooyu mm-hmm. yëpp waaye daal. Eh, gis nañu itam cofeel gi ak yitte gi ngay wone suñu digganteeg ñun jërëjëf seen mbokk yi kon seen émission démb ak tay la woon ñu doon waxtaanee indépendance ak ñi ci taxaw ñi ci dox ñi ci wax euh, ba ñu yegg si fii tey di ko màggal ci dimanche ji di ñaan yàlla mu may ñu fekkee yeneen i at Sénégal itam yàlla dolli fi jàmm jaawo jàll mu ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom ci kaddu gi ñu ngi leen di gërëm ba dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen